jangin ngeen mbokki mbokk sen sen seen Jowli senegal mu melni ni riirup li nga xamanteni sini mom modi accident yuy xew ci bir rew mi xajagul bay waja jeex ginaaw buñu bolé ak accident bi nga xamanteni sini mom mo amone ci cyclo ak accident bi nga xamanteni sini mom mo amone ci sakal rew mu senegal daal di woon lu tollook ci juróom benn fukk doomi aadama yi toftal ñett muy tiis ak njàkkare gi nga xamante ne ni askanu Sénégal daal di woon nañ koy naqarlu lool ba waral réew mi ñi ko ŋànk di nji di kaw yi daal di woon jël lu tollook ñaar fukk ak ñaar ñenn ñi daan ñaar fukk ak ñett ci ay mesures ngir ñu dakkal yooyee ñaw ñaawteef ci kaw tali bi mu mel ni nag wax yi ak jéego yi nga xamante ni si ni moom la ci njiit yi kawe yi di def ak ñi fare ci wàllu wekk askan wi dayut ndaxte nemmeeku nañ ci autoroute bi it ab l'accident boo xamante ni si nii jéy ju metti la ay doomi aadama ñàkk na ci seen bakkan ca booru sogul la accident boobee amee ab camion ma ab oto loolee di ay xew-xew yi nga xamante ne si nii nemmeeku nañ ko bis bu yàlla sàkk ci suñu tali ana lan mo doxul wala bok ana lan lañ wara mëna def ba mbir mi dak fi ci bir réew ñenn ñi nak duut baramu tuma comportement yi nga xamante ni mom la aji kat bi wala bok ñi nga xamante ni ñom ñoy jëfëndiko suñu tali yi am Nes mun def nak ba comportement yoy yi a ñong moy xalaat wi nga xamante ni mom lañ yi lëkkaloo ceek syndicat de transport yi amal ngir jéem a xool ana naka la ñuy dakkalee mbir moomee askan wi nag ñi nga xamante ni si nii ñoom ñoo di aji jëfandiku yi di ñaan ci ñi nga xamante ni si nii it ñoom ñoo di njiit yi ñu fexe ak direction de la sécurité routière lëkkaloo seen doole ngir wàññi mbir mi ndaxte l'accident yi bëri na lool te dara waralu ko lu dul yenn ci comportement yi ñuy nemmeeku ci kaw tali bi waaye itam ci aji jëfandiku gi waaye itam ak ci ñuy dawal yooyu leen ndaamaar l'accident bi nag am fii ci sàkkal day firndeel rekk ni jéego yi njóor yi gi di def ngir xeex li nga xamante ni si ni moo di accident yi day gën a ñaay wala bokk ñu ne jéego yooyee amut benn njëriñ ndaxte bis bu yàlla sàkk ay accident ñoo ngi am tey jii nag ca Sogul ñoo ngi lim juróomi aadama tey jii nag ca sogul accident boobee ñu ngi lim juróomi doomi aadama yi ci jëlee seen bakkan mu mel lim boobee rek la bataaxal bi nga xamante ni si moom la kilifa yi jot a fësal wane ñuy njortu sax ni fii ak suba wala yeneen bis dina am loo xamante ni si ni moom moo ci yokku ci ñooñee génn àdduna ñuy ñaan tey xalaat nees mën a def li nga xamante ni si ni moom moo di jéego état di def lëkkaloo ceeg syndicat de transport yeeg aji jëfandiku gi mu nekk lu ñoom ba dàqale ñokk accident yi ñuy nemmeeku bis bu yàlla sàkk